والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لن أدا من ربي وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو القيوم لا تقصه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسوى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود يحصى وهو هو اليسيم ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew di nuyoo ci biir réew mi ak biti réew di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sa borom yàlla yàggal ko te wéral ko ba naal yi nga xamante ni mooy ay naalam ak naalu gaa yu baax yépp mu eggale ko ci sago te mu ànd kook ñun ñaan gu mel noonu ñoo ngi koy ñaanal Serigne seex jëmb Fall mi toog ci jataayu maam see Ibra Fall bi mu eggale naali boppam yi ak naali gaa yu baax ya ba fa mu ko bëgg te ñu ànd koog moom ñoo ngi ñaanal tey jaajeufal tey gëna yaakar yaakaar gëna doylo a gëna bëgg tey gëna wolu suñu sunu ja Cheikh Sirif abdourahman Fall Tilala khadimul khadim ñong koy ñaanal sa borom yalla yok ay leram ak yermandem te taasum ci barkem ñoo ngi ñaanal soxna Faati Gay bintu soxna bintu bintu Cheikh masamba sa borom yàlla yokk yërmandeem ak leeram ca barsax ñoo ngi ñaanal sëriñ Boubacar Faye doon wëllëre sëriñ bi sa borom yàlla yokk yërmandeem ak leeram ca barsax ñoo ngi ñaanal tey siyaare te yeesalaat sunu jébbal ñoog taalibe yëpp te koy doyloo te koy yaakaar te koy bëgg te fas yéene koo liggéeyal Cheikh Sirif Abdou Aziz Fall Tilala xaadimul xaddim mi nga xamante ni moo toogee jataay bi ñoo ngi siyaar bu baax rakkam yu baax yëpp ci njiital sëriñ Lamp Fall mii nga xamante ni moo fekk ak moom mm-hmm. di siyaare suñu mbokku taalibe yëpp di siyaare bu baax waa ahlu alxuraan buñ ci tuddee sëriñ Amar Diouf Raaya tudd na ñëpp kon sëriñ Abdou Aziz moom fa mu teg tànkam mooy lam nu waxoon mm-hmm. def nañ fi juróom-ñaari kaamil wàcce nañ ko fi sëriñ bi alxuraan rek la bëggoon way amoon na ci taamu woon moy ñom señ amadou Diouf Raaya ya. tey ñoo ko jangal juroom ñaari kamil jang nañ ko sëriñ bi nag khassid ak sindidi mo doon xasidaam 6666 sindidi jang nañ ko ba ko Cheikh may Gueye tambalé ak tay tay ji lañ koy dogo matal kon dañ doon leeral ni suñu bis bi kat tay señ bi ko doon defandok nun dina wan nan la ko bëgge dina wan nan lañ koy doxalee waaye du mën a ñàkk nag bis bi buñ demee ba dëgmal ko sëriñ bi dëddu laxut suñu bët faaw rupture am moo tax nii rek la bis bi mën a demee faaw mbas am yàlla indi lu tegtale ni sërif Abdourahmane moo tàmbali woon ba fii bu déwénee nag ñu jël sërif Abdou Aziz jiite ko ànd koog ñun taalibe wa bi kulli isbin asanatan wa bi kulli nisfin nihmatan wa bi kulli rubin rifatan wa bi kulli sumnin sanad اللهم ارزقنا بلاد رفعة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالآي إجمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالثالث سكان وبالراء رحمة وبالساء سلفة وبالشين شناء وبالشين شفاء وبالساد صدقا وبالداء دياء وبالتاء تهرة وبالساء سفرا وبالعين علما وبالخين خناء وبالفاء فلان وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام الليل في الفاق وبيا يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآل طاهرين أجمعين ñoo ngi ñaan tey wax ci ndigalu Sérif Abdou Aziz Fall mi nga xam moo toogee jataay bi ñun jëwriñ ngañ mbuub mi nga xamante ni ñun la sëriñ bi jiitaloon ci kanam mbooloo mi wax dëgg yàlla nag ku am xel di xalaat rek war ngaa xam ni dinañ am émotion bu rëy ndax koo àndal fanweeri at ak ñett muy sa sëriñ di sa bàyyi di sa wéyjur di sa xarit di sa confident bëgg la taxawu la wutal la kër takal la soxna ngénte la sab taw buñ nee gisatoo ko mu bis bu mu daan def te bis yépp bi gënal ko ci dëgg-dëgg tey am nan lu dis lu dal suñu kaw waaye nag ñu koy sant yàlla nag ndax daf ñoo tàmmaloon ni ab jullit day sant dan wax naan virus gor boo ko xaree da ngay fekk mu nëpp la muy muñ te mënu koo wax tax loolu moo ko wax kon muñ rek la def tay sante yalla tay gëna julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye di yeesal nak suñu ngëm ak sunu doyloo Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam jang alquran comme li li ñu joggé loolu la ko daan defee heure bi tembe moy ñu ngi jang khadim bi señ bi tok ci jotaayam bu tedd bobu ak taram ba ak yaanjaayam ba ak baay falem ga ñu jang alquran di jang khadim bi heure bi tembe ñu koy jang nu yek ci mom di xol di dem ca wañu wa ñi di dem ca bass ya ñuy xaar cheikh ci siyaar ci mm. heure bi tembe loolu mo jotaay ba loolu lañ daan dund buñu ñu ci fi jamono ji nga may laaje bu doon daw la duma ko tal ma ngi yaale ci wañu wa ak dem ca kaw di xol ak ak ak ak dem ca bass ba li tax ma tuddu loolu ndigal loolu la mujjé jox buur yaa may laaj ku tedd daaw daf ma ni damaa bëgg nga xam ne yaay jëwriñu kër gi wanewu ma sama bopp waxi sëñ bi laa bëgg a wax ni ma bu bàyyil bu bisi jotee nga takk laxasaay sol lu tilim bàyyil loolu na nga solu ba jekk moo tax ma xëy sol lii ni ma na nga solu ba jekk di ñëw ci man di ma xool di dem ca baas ba di ko xool di dem ca waañu di ko xool waaye bul tilim xam nga moom dafa bëggoon bopam bëgg gi bopam moy dafa xam fi mu joggé ak fi mu dal ci xam nga teranga wessul yoon sa mam nak bur teranga wessul weesuwul muhammad ali sallallahu alaihi wasallam moy sa mam li tax mu ni Cheikh ibrahim moko jox fitalu ñaari ngeem mañ mu ci def di ci dindi loolu tax fital ñaari ngeem mañ am xam nga nit mën na def mën ta dindi am ko xam dindi rek la man mën ta def Sering bi mënoon naa defar moo naa yàq defar da koo neexoon mo na naa defar moo naa yàq loolu la wax ñun bi dañu fee bàyyil yar ak xam ay teggin day am yar ba pare xam ay teggin c'est la façon d'éviter l'obstacle teggin kenn du ko am kam sering koy xam sëriñ bi daf ñoo digaloon nu wéy ci ndigal sëñ bay jaxate nag daf ne ndigal caabi la bu uppe du ubi bu yese du ubi boo ko damu ni ko sëñ Mouhamadoul Mountakha waxee moo tax sëriñ Abdoul Aziz mi toogee jataay bi waxoon ni seex bu nekk moo la wool boppam ni la defee ko sa kër jëwriñ ju nekk mu walan la defee ko sa kër taalibe yi am yi ñu am seeni numéro ñu woo leen leen defe ko seen kër ndax kat mbas mi dafay ñëw buñ ko bëggee moytu nag dañuy ànd ak spirituel boo gis day ànd ak temporel waaw Sérif Abdou Aziz Fall doomi Sérif Abdourahmane Fall Tilal la loolu doy na wàccuwaay waaye xam nga ku am kër ndey ku am kër baay da am kër ndey ndeyam soxna Kiné saar la tudd soxna Xadi See ko jur caatu sëñ Babacar Si soxna Kiné Sarr moom sëriñ Abdourahmane Sarr ko jur doomi soxna asu si maam Alaaji Maalik sëriñ Abdourahmane Sarr moomu jur ndeyam moom lañ tuddee sëriñ bi sërif Abdourahmane Fall Tilala Xaadimul Xaadim kon personnage am mooy murid la tijaan la sërif la ku ko way rek da ngay wëndeelu waa xam nga loolu sëriñ bi moo ko def ci ñoom pour firndeel la weeru koor wi ñu ne buñ ci masaana nekk ñoom ñëpp mboolem seen ca kër sërif Abdou Aziz Fall la ñuy dem ndogoo jee bàyyi fi sëriñ bi ñoom ñëpp rakkam yëpp ca moom la ñuy ndogoo ñoom defoon nañ ko bàyyi laataa seen bàyyi di fi jóge tegtal yi mooy sëriñ Ahma Fall mi nga xamante ni kenn la mag ki doomi sëriñ bi sëriñ bi da ko jëloon may ko sëriñ Abdou Aziz ma këram fi mu ne kon ñoom seen baay doy na boole woon ndax sëriñ baay lu bokkul ak sëriñ moom way jur la woon bu jël ay responsabilité am ci ay doomam ñoom lay lekkandool ñoom lay naanandool ñoom lay naanandool attaaya ñoom lay fowandool ñoom lay waxtaanandool sëñ Touba ñoom lay waxtaanandool Cheikh Ibra ki nu am lañ dootul gis ku mel noonu kaay boo ñëwee ci man ni ab taalibe nga booy tux doo sama taalibe booy naan doo sama taalibe demal ci sa jur del teral sa ndey del teral sa baay boo amul ñëwal ma jox la nga dem teral leen jooju boobu nit kenn dootu ko gis ku ci nekk ci ñun séq na ak yow ba nga yaakaar ne yow la gën a bëgg ku ci nekk ci ñun Sérif Abdourahmane séq na ak yow ci personnalité boo xamante ne danga nga yaakaar ne yow rek la bëgg doo xàmmee doomam ak taalibeem buur daf ñu daan wax naan rus naa Sérif Abdou Aziz mii toog jataay bi tey tëdd di nelaw ma leen di jox këll ngeen dem màjjali rus naa loolu boobu sëriñ lañ amoon. ndax ñoom xam nga doon nan ñaan xam nga toujours damay wax ni sëriñ bi dafa am fauteuil bàyyi ko gedd fauteuil jël basang xam nga pas-pas boobu rek tax na mu mën a ñaan yonent bi mooy sama maam xam naa ni man yéen ñëpp xam ngeen ni ab sërif lu mu gàtt gàtt wërsëg fu mu dem ci kaw lay toog ñëpp xam nañ ni ab sërif lu mu gàtt gàtt xam-xam daan ko jox àddiya loolu ñëpp xam nañ ko loolu ñëpp xam nañ ko sëriñ bi bàyyi fa loolu mal sëñ Touba ba pare roy maam Cheikh Rafal te xam na ni kii roy maam Cheikh Rafal ci suuf lay xam na kii roy maam Cheikh Rafal day joxe àddiya sëriñ bi kon dafa weccoo fauteuil ak basan weccoo ñu jox ko ak mu joxe pas-pas boobu rek bu ñu ca yemoon mu mën a ñaan ba noppi nag sëriñ bi sërif àqan la am na maam joo xamante ni ci tëkkas kumba ca gànnaar maamam jooju bu masaana am gan kuur lay teg day rendi muy bëy mbaa muy xar mu teral buur bu subaa karim ñëw mu rendi muy bëy wala muy xar mu teral karim bu noppee dajale ay yaxam fëggaat muy kuur mu teg ko ne maamam jooju dund denc nañ ko fanweeri at ak juróom ngelaw lu bari ñëw puus loola bàmmeel bi génn ñu koy sëkkaat peel ba laal ko mu nàcc ñu génn ko làqar ci ko sangaat ko sangaat ko julleewaat ko doog koo dencaat kooku la Sëriñ Abdu Raxmaan donn ay maam yëpp ay wàllu yu leen kon ñoom doon nan ñaan kon ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Abdou Aziz mi nga xamante ni moo toogee jataay bi sa borom yàlla def ci dëkk bi ndimbal ak taw féex ceeb sëriñ jataayub Serigne Mountakha Bak Serif Abdourahmane jataay bu mujj ba Serif Abdourahmane moo gore buur xam nga lu ko sëñ taxaa wax dañuy xool sëñ tuubaa ci yow ak liggéeyal sëñ Touba ci sa jëmm mu jóge ca mbul kayal maa ngi moom a àndoon ak Boubacar Faye mii mu àndal dogal bi dal seen kaw ak doom ji ñuy wax sëriñ Mourtada Fall bi ñu ñëwee mu ne yi bu ko kenn génne te ku fi sa sëriñ wax lu baax nag. nga génne ko ci internet yi. waaw ci ginnaawam la de waaye ñu fi ne kenn génnul vidéo yi ku bëgg xam lii ma ko rek na ko xool ci vidéo yi sëñ mu doxaa ko waxal boppam xool sañ Touba ci yow ak liggéey sañ Touba ci sa jëmm kon ñun kook boobu sëriñ lañ amoon. sëriñ bi ci taalibe mësta nuyu sëriñam kolu mësta nuyu sëriñam takk mont mësta nuyu sëriñam takk maxtume mësta nuyu sëriñam takk téere dënn bis mës nañoo ànd man moom ak taalibeem bu ñuy wax Mbay Grand Yoff ku ñuy wax sëriñ Fallou Sylla mi ngi fi doomi soxna Mbène Sylla doomi sëriñ Maxtaar Sylla mu soxna Marema Kunta ñëw woo ko ni ko sëriñ Saliou nee yow lay xaar sëriñ bi ñukk ñu ñukk di topp ci sëriñ bi ñukk ñu ñukk topp ci ba ci kanamu sëriñ Saliou keroog sëriñ Saliou doomi soxna Faat Jaxate ji mooy def ni loxo yi ñu koy xool ngir mbooloo mi may sëriñ bi mu yegsi ci moom bi sëriñ bi yegsee portable bi mu yor wadd bi sëñ bi nuyoog sëñ ba wax ak moom ba mu ñaanal ko bi mu dem mbay ganaaf dee ko ni ko sëñ bi portable bi daa wadd damaa bëgg dem jël ko sëñ bi nu ko ndax mbay dangaa dof nit war naa toog ak doomi sëñ Tuubaa di xalaat portable bàyyi ko foofu numéro yooyu noonu la ko ñàkkee noonu la doon dundee ak Baye Fall ba noppi bis bii nga xamante ne tey ñu ngi koy def muy guddi maam Cheikh Rafal sëñ bi mës a nangu ñu taf panneau publicitaire wala internet ñëw wala rajo lu dul dafa yóbbu addiyaam ci sëriñ Cheikh jëm su ne xanaa xamu leen ni Sirif Abdou Aziz bi mu toogee jataay bi li mu njëkk a def mooy addiya ja baayam daan yóbbul Serigne Cheikh jëmb yóbbu na ko jox ko rakkam ji tudd Serigne Khadim Fall Tilala mu ànd ak Serigne Moustapha Fall doomi Serigne Modou Aminta ñu yóbbu ko Serigne Cheikh jëmb Fall. kon ba léegi mbir yi mu ngi tegu fa mu daan tegu boo ñëwee ci kër gi tey ka doon attaaya mooy attaaya ñi daan toggay togg ñii toog ci buntu kër gi toog ci buntu kër gi ñii lalay lal ñii fompay fomp da nga yaakaar ne sëñ bi daan ci néeg bi rek naan attaaya Sirif Abdourahmane terang du fay mouri pire la won sadikh Baye Fall pire di julit akkan kon ñongi ñongi ñongi rek euh, di di jeexal suñu kaddu euh, di ñaanal julit yep ak mbollem doomu adama yep mbas mi lu international la yalla moko fi indi yalla mokoy koy waye ñongi ñaan ci barkeb Sëriñ Muntaxa mi suñu mbas mi yàlla jëlee ko fi sëriñ Abdou Aziz mbas mi rek lay xaar ndax buur nag taalibe yi bàyyam yëpp ko namm kenn génn ko rakam ji sës ci moom di sëriñ làmp ba ci sëriñ Saaliw ba ci sëriñ naa ba ci sëriñ Murtada ba ci sëriñ Xaadim Tilaala ba ci sëriñ Fàllu Fall mii ñoom ñëpp mboolem seen ñu ngi seen ginnaaw ma ak seen rakk yépp may jëwriñ universel u baayam maag jëwriñ yëpp ñu ngi ci ginnaawam seexi baayam yëpp ñu ngi ci ginnaawam taalib yëpp ñu ngi ci ginnaawam dëkk yi ma la wax yëpp nag seex sépp ak territoire bi yëpp moom la ñuy xaar mbas mi rek lañuy ñuy xaar ñoo ngi ñaan ci barkeb jataay bi ak bis bi bis bi si maam Cheikh Rafal gisoon ak sëñ Touba yàlla na fi mbas mi jóge te ku ñu xam bu mu ko dal ku ñu xam ñun bu mu ko dal ñi mu dalit nañu wér pëlëg buñ ci am benn gàllankoor ñoo ngi ñaan réew mi daal sama yàlla def fi jàmm ñoo ngi ñaan jullit yi sa borom yàlla jox dëbb leen kattan ak wér ba nu mën a yeggali seen koor ci jàmm ñoo ñaanal taalibe yépp fépp fu taalibe ne te yaakaar Cheikh Sérif Abdourahmane Fall Tilala Xaadimul Xadim ñoo ngi lay siyaare di la ndokkeel ci bis bii nga xamante ne amuñu lu dul moom assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatu allahuma jal sawaaba ma xaraqnaahu wa barakatan ma talawnaahu min kitaabika al asiis wasilatan wa rahmatan muntasilatan ila ruhi Sérif Abdourahmane Fall Tilala ba soxna Fatou Bintou Gaye wa sëriñ boobu fay sëriñ sëriñ boobu boobu fay wa sëriñ wa Abdou wa wa sëriñ Abdou Guèye wa soxna Fatou mbay wa Mouhamadou Ndiaye wa Naago Guèye allahumma ijal sawaba ma xaraxnaahu wa barakatan ma talawnaahu min kitabika al asisi addiyatan wasilatan wa rahmatan muntasilatan min kalaw ruy sëriñ sërif Abdourahmane Tilala